mais jour combat bi lan mooy clé combat bi. bon combat la bu naqari analyser oui parce que aussi boo xoolee Siteu ci face to yi am yëpp li muy def mooy monter la pression ci kaw Lac loolu dafay wane tamit ne dafa bëgg rek le jour di combat Lac bañ ñëw ak xelam parce que xam na ne déjà bu dee. doole lak moo ko ëpp doole. Mhm. bu dee bagarre bi aussi liñ fi jot a woon ne lak moo dàq xeex. tactiquement aussi lak est plus tactique parce que làmb ji bokk na ci mbër yi gën a tactique ci làmb ji Lac de Guiers. est bokkul ci ñi daq bëre parce que ñu bëri dañu koy dañu koy euh, saboter wala je sais pas peut-être xëy na nul yi yi mu yi mu mu teg la. mais il fait partie pourtant pourtant bariwul nul ah. il, il, il fait partie des meilleurs lutteurs de sa génération Lac ndaanaan la ndaanaan dëgg la bërekat la et puis bon moom c'est dafa nekk nit ku fonk bésam rek nekk nit koo xam ne peut-être ku nekk am nga sa façon de faire. te du sax saaxee bërëm waaw saaxee bërëm bu public bi yëpp taxawee di wax aussi loolu moom du du dara ci moom moom dafay continuer rek ci li nga xam ne moo ko ñor ak ni mu ko gisee. donc loolu aussi tax na amateur yu bari ànduñu ci ak moom mais boo xoolee aussi bariwul defet bon Siteu nag. bon ci côté xeex bi man gis naa temps yi mu soigné côté mais gauche bi. crochet gauche bi bon à part loolu man gisuma leneen loo xam ne am na ko ci biir xeex bi donc Lac aussi moo ëpp doole te li ñu jot a wone ci bëre Lac 2 neexul manœuvrer parce que c'est un lutteur teigneux et mbër la boo xamante ne nii dafa dafa mën téye boppam. donc te loolu aussi am na foo xam ne aussi dafay baax. d'accord dafay baax donc c'est un boo xam ne attendons aussi de voir parce que dimanche yàggul. Mhm. mais c'est un boo xam ne combat la daal bu bu waar léegi bon Lac de Guiers en réalité dimanche la ñu ko mën sujet nag parce que nag mu ngi soog a jël mbër boo xamante ne nii peut-être tey Siteu ak Lac 2 Siteu waroon na jaar feneen. dul mu agsi si Lac 2. mais peut-être popularité bi mu amee. ak peut-être grand contre petit bi ñu wax. ba pare woon na bëre tamit. woon na bëre et loolu moo tax xëj na tey mu teel ci jot. Mm-hmm. mais mais mais mais valeur la de Guiers 2. dëgg pour ñu xam ko c'est dimanche. nee na dafay attaquer léegi attendon de voir. xool bu ñëwee mais man aussi li ma koy wax rek mooy xam nga yow ajaa am na nooy doxee. boo bàyyi sa doxin sa doxin dafay ñaaw. <laughs> d'accord dañ koy wax sax ci football alors grand grand Pape